bu yàgg maanaam tekki ndombal tànkam leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien Mamadou Diop Decroix ne xoolal li xew ci message à la nation bu njiitu réew mi Macky Sall ñetti fan ci weeru avril daa soofantal daa mel wax ci googule fitna ci weeru mars Mamadou Diop Decroix ne du ñu seetaat benn yoon ay nit di jóg di taal réew mi Walf Quotidien ne lu jëm ci élection locale yi njiital AJ/PADS ne njiitu mi Macky def bi Direct News lan lañ ci ay pexe yu bëri bu fekkee ne yegg nañu 2024 te njiitu réew mi Macky Sall munta News ne ndax newul moom la ñu a def plan B bu ñu sukkandikoo ci Mahmoud Saleh Direct News ne Mahmoud Saleh liggéeyam yépp bokk na ci ngir Idrissa Seck ci fan yi ñu jëm mu doon premier ministre yéen kaabi di tribune waaye lu jëm ci ak ak yelleefu doomi aadama dañ ko fee salfañe ci mim réew bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International métitlu na jaay doole gamu ne moom la takk der yi di wone saay bu ñaxtu amee leneen lu Amnesty jot a métitlu bokk na ci feesaayu a def téeméeri doomi aadama ñu dugal ca lu tollu ci ñetti téeméeri doomi aadama ñetteelu bi Amnesty International te faral di jur coow ak xicoo ci réew mi di mbirum suuf ne bari na ci réew mi ñañu daaneel seen dëkkuwaay ci anam yu dëppoowul yoon lu aju ci mbirum ñaari tur yi maanaam góor jigéen ñi yéen kaabi di las ne Amnesty International kondaanul benn yoon ni ci nguurug Sénégal di ci doxalee bu ñu sukkandikoo ci Seydi Gassama ne bu ñu tënkoo ci charte réew mi mi aar ñëpp kon warta am xaaj ak seen ci askan wi ne ñii góor jigéen ñi nañ leen sàmmal seen ak yelleef yéen kaabi di l'Observateur ne nguurug Sénégal bu sàmmoontewul ak matuwaayu mot sëkk bu ñu deful ndànk musiba mun na fee am bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Aziz Ndaw di colonelu gendarmerie jël retraite dànkaafu na artu na njiitu réew mi Macky Sall ne am na fi ay defkatu ñaawteef yu mbugam bu boo leneen ngir xallal yoon terroriste yi colonel Abdoulaye Aziz Ndaw ne njiitu réew mi Macky Sall bu ci bàyyiwul xel bu ci jëlul matuwaay ya ca war su boobaa Sénégal mun naa dund la Mozambique dundoon l'évidence xëy dellu siwaat ci le Sénégal joto a dund ci fitna ci weeru mee bi weesu tax na ay kilifa diine ca Kaolack ña ngi cay amal bécciku ñaan ngir jàmm ne ñooy jagleel ko réew mi rawatina njiitu réew mi ngir jàmm ne ñooy ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci Baye Thiam Akhlan taxaw ci commune bu jàmm Babaguène Sika Mbao ak meeru gox ba di Ndofène Fall te mu ñeel lam fa jot a ubbi bees jëm ci maison de justice ak bibliothèque municipale lañ ca xayma ci koppar toll ci juróom fukki million yéen a kàbbi di le mandat ana fond force covid 19 bi maanaam koppar yañ fi jotoon a xaymaal ngir taxaw askan wi yéen a kàbbi ne njuuf jalgati tàmbale na caa feeñ bu ñu sukkandikoo ci ñaxtu waa ànd gësëm rawatina liggéeykat ya ca ministère de dénk wàllu paj mi di Abdoulaye Diouf Sarr yéen a kaabidi las ne dossier salon de massage suite beauté gi fagul gannaaw kàddu tuuma yi Adji teg ci ndodd Ousmane Sonko las ne tax ay jigéen ni jóg nañu taxaw ngir dooleel Adji Sarr bu ñu sukkandiko ci Aïda Batara mi bokk ci góogule kuréel ne lenn dong la ñuy sàkku moo di ne ne yoon def liggéeyam ci bile dossier ngelawaay bu ñu fab dossier bile dugal ko ci tiroir yi yéen a kaabidi suñu lamb xëy dugg ci combat Modou Lo Ama Baldé ci biir yéen a kaabi ay farandoo Ama Baldé ñetti mbir dong la ñuy xaar ci seen bër jàppanti Modou Lo ba ko na Ama Baldé duma Modou Lo ba ko ñetteel na Ama Baldé daan Modou Lo jël gu set wecc Ndayane Imo District ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laan waa mi naan électricité générale si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër